règlement intérieur mais dama ciy boole nag arbitre de l'arène de l'Assemblée nationale parce que noon naa mbër moom ci guy rek la yem nekk am na fii ba ñu yëngali loxo donc monsieur le président monsieur les ministres le collaborateurs des ministres avant tout je vais rendre un hommage mérité à son excellence le président Abdoulaye Wade d'avoir permis aux Sénégalais d'accéder aux grilles du euh, aux grilles de euh, l'Assemblée nationale barricade bi am fii tey amoon fi bi ñuy def parrainage bu Abdoulaye Wade defoon noonu kon tey nit ñi duñu yegg si ba bay feete anniversaire bi mais monsieur le ministre yéen nag yéen a yóbbu fiti nit ñi yow nag yaa nara a toj Sénégal yow xam nga lu tax ne bëret ne terrorisme nit ñi bu ñu xamul terrorisme ci Sénégal vivre ñu ko itam ñu ngi koy gis ci Mali la xew la la fa xew moi je de la CEDEAO le Mali a été retiré de l' espace CEDEAO ndax seen terrorisme bi ñuy def seen terrorisme bi ñuy def xale yi sax xam nañ lañ mooy loo xam xam nañ sax lan mooy la boo nee bëreet wax loolu kañ yow kañ bu nit ñi nelawul lekk ñu naanu ñu dolli ci xiif bu ñu yoroon yow mii la sàll nga baal maak monsieur le ministre damaa wax ni fii daf amu fi li ngeen nar xam nañu ko bàyyi leen mbër gi falang daanu na ba falang daanoo la kenn mënta nax kenn Senghor a daan wax ne réew mi golo xaj la woon bu golo yéegee xaj toog ci suuf léegi nag golo golo la boo yéegee mu yéeg fekk la ca kaw nga wàcc mu wàcc li ngeen nar xam nañ ko coloniser nit ñi kenn du meeting kenn du wax kenn du def dara responsabilité bu ca am ñu ne kooka la def ko à perpétuer ngir yàlla monsieur le ministre est-ce que am nga xol buy daw est que yow sax sa sa cœur dina yëngu est-ce que monsieur le ministre vous êtes humanisme Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des sentiments, sentiments parentaux envers nos enfants mais mosul am dans le monde là képp kuy jigéen ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba xaw laa rey nga yor sa doom ba muy magum jëmm pour des histoires personnelles politiques ñu jàpp suñu doom yi di coup de di dóor wóor na sëñ Fall dama doon jooy les bras les les gros bras léegi yow nga ne ministre de la justice def doo loolu moo jar a wax képp kuy jigéen bëggatuloo am doom ndax loolu lu ko fi jar Macky démb Senghor la woon Abdou Diouf ñëw Ablaye Wade dikk Macky day wàcc par A ou B seul le pouvoir de Dieu est fii ku fi yor pouvoir yàlla ko jox mais soo ko yoree nga rafetal ko nag ba bu ëllëgee boo wane gannaaw nit ñi man laa topp Abdoulaye Wade bu wàccoon fii tey ñëpp koy topp ndax dañ ko doon xas waaye xam nañ ne il est le meilleur président de la République du Sénégal monsieur le ministre ma di la yóbbante ci le président Macky Sall garde rouge yaa ngi ko wër généraux yaa ngi ko wër décret yaa ngi ko wër audience présidentielle yaa ngi ko wër mais na yëpp ci boppam ne bis dana ñëw ñooñu danañ ko bàyyi dem wëri moromam ndax fii loo fi gis ci àddina able la yàlla da koy da koo able wax leen lu leen neex wax leen lu leen neex état moo mel noonu c'est notre frère c'est notre frère paternel on a fait vingt ans avec lui fit bi mu yor yen ñi yéen a ko fa may waaye am koon xam nañ bu baax ki yee Macky Sall ah ngeen foog ne rek loolu dëgg la wax ji wax ji